ana lan la président Macky Sall di xaar ngir wax ak sénégalais yi ci li nga xam ni moom moo ñeel troisième mandat nee na nag moom nii wii nii non moo di ab tontoom fi ñu toll nii. mu nekk lu vague loo xam ni ak lu mënti xew moom président Macky dina ci indi ab leeral ndax nag moom li nga xam ne moom moo di yoon te mu nekk logique mooy que président Macky warul bokk candidat yi war a jongante ci atum 2024 ndax la nga xam ni moom waxoon na ko te mu leer naññ moo di bii moo di second et dernier mandaawam kon nag. bu fekkente ne dafa jéem a dem ci troisième manda ngir ngir nekkaat président de la république du Sénégal loolee dina nekk ay kaddu yoo xam ni trahir na ko moom président Macky Sall te bu boobaa sénégalais yëpp dina am ab taxawaay bu ñu am par rapport ak loolu moo tax nag. ñëpp di am yaakaar que ne moom du def lu ni mel waaye nag boo xoolee nomination yi nga xam ne moom def na ko dalee ko ci conseil constitutionnel ak Badio Camara ministère de la justice et garde des sceaux ci Ismaïla Madior Fall teg fi Félix Antoine Diome comme ministre de l'intérieur loolee dafay teeyal xel ba tax ñëpp di laaj ci ndax président Macky Sall nekkul ne dafa bëgg njuuj njaaj ba mën a bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 bu ko defee nag sénégalais yëpp dinañ taxaw temm jàmmaarloo ak moom wan ne ko nous fay jiite rek bu fekkente ne yëkkati nga fi ay kaddu loolu da nga koy respecté boo ko deful dinañ la wan ne fii au Sénégal c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple la décision finale revient au peuple kon nag jarul forcer lenn bu naree def forcing population sénégalaise dinañ taxaw temm wan ko ne ko kat yeewu nañ kenn dootu ñu nax te Sénégal gii dañoo fee bëgg changement kon président Macky Sall na dem jàmm ak salaam et cela di nga génn par la grande porte